tey yéen a ngi fi war taxaw ngir ñu libéré Pape Ndiaye te dafa am loow yaram ci affiche yi ma gis tey mbubb yi nga xam ne def nañ ko def ci libéré Pape Ndiaye Pape Ndiaye ci boppam lañ ci def taf ci dënnam libéré Pape Alé Niang loolu donc li muy tekki leer bu ñu maytuwul wala bu ñu gënul baral taxawaay bi taxaw ni ñu war a taxawee ñun ñii di wax tey sax naan nañ libéré Pape Ndiaye xëy na bu ëllëgee ñu taxaw ne nañ libéré Mamad Ndong wala nañ libéré Ablaye Mbow wala nañ libéré képp journaliste bu fi nekk boo xam ni da nga bëgg li ngay def nga def ko ci sa akulaay taala ko ak li nga warloog Sénégalais yi muy informé juste et léegi nag lii li ñuy teg ci mooy jógte nañu pour lii nga xam ne moo ñu séparé 2024 parce que ay enjeu rëy ci nag. képp koo xam ni yoon wi nga jël bokkul ak yoon wi ñu jàmm ñoom nga nekk ci ba moytuwul yaa ngi ci gudda te taxawaay bu gën a bari rek mooy tax ñu takkal ko lu weesu donc journaliste fi teew tey lu weesu groupe de presse Walfadjri lu weesu membre de la société civile bi fi nekk ak député yi nga xam ni dafay représentant du peuple te ñu ràññee ci Guy Marius Sagna gi jël parole léegi sénégalais yëpp ñoo war a foofu ci xeex ci combat parce que mbir mi mbir mi du mbiru xeexu journaliste kese xeexu liberté d'expression la ak xeexu démocratie te loo xam ne nag dañ koo xeex ay ati ak ay ati ak ba tey ko tey a warul tax ñu sàggane ba mu wàcc ñu loxo donc vive vive vive vraiment cette mobilisation que les autres Sénégalais rejoignent également dans vos d'action, parce qu'il s'agit de défendre la liberté d'expression et la démocratie et les valeurs de la République. Merci, jërë ngeen jëf.